yow doo ñu may jàmm ngir yàlla jëmmu laay bala di 17 passé nga mel ni biir buy daw yow Yérim sonal nga ñu de yow journaliste nga wala lan nga Yérim man yenn saa yi soppi la tàngal rek jaay la xale yi ñu màcc la sama xel di daj doo yow doo ñu may jàmm man su ma ne bàyyi naa TikTok bi rek gisaat lu ma métti mu ubbi ay tànkam nii ni ni nii jeeg bu ndaw yow doo ñu may jàmm ngir yàlla ak jëmor solaay bàyyi ñu bala di set passe ñun ñu ngi concentré wu di liggéey intellectuel dina toog naan intellectuel ñu tëj intellect wu seen intellect yow kon yow yow yaa ngi classe sa bopp ci intellectuel wu sénégalais yi li yaa tax sénégal demul mu naan intellectuel veramente poi la ragazza mi dai sui nervi mamma mia io non lo supporto Basta adesso con queste stupidaggini, sempre bla bla bla bla bla bla e eh, basta. doo ñu may jàmbale di seen paase sama genre gi yëpp ngi rangé wu seen coin di liggéey intellectuel yi dëgg ñu ngi liggéey jamono bi gisatoo leen ci TikTok bi ñu ngi raar.